الله يجازيكم عنا خيرا مورد مورد ونفخ الصراع taxawal tuuti way woowu dafa mot a wax nit ñi ñu dégg ko ci olof ay mujisaat la borom téere boobuy limal Moustapha alaaji Malick yal na la yàlla yombalal ñaari téeméer yombalal ko jullit yépp alaaji Malick si bu fekkee fa ñu tagg yonent bi joxe ci ca jàkk bi aywa ajaratu maam leena léy yal na ko yàlla yombalal def ko ci jàkk bi nataqa shiraau bi zammihi lak mu'linan du noonu Seynabu bint Xuzaama yëwat la woon bu jigéen ñoom ñépp seen mujjug daanante jërëjëf moo di ku ci nekk di fexeel na bi lu gën a bon moo invité woon Moustapha wax wa wéete kenn ci jàkk wéete kenn ci taalibe yi laaj ko ci saaba yi wan yàpp la gën a na bi gën a bëgg mu ne ko yàpp béy na bi yàpp béy la gënoon a bëgg mu ne ko fan la gën a bëgg mu ne ko palanxam ci kanam tànkab kanam mu rey gàtt booba invité Moustapha togg ko nag poson ko oh nabi ba mu toog Ababacar toog ñu raxasu nabi na loxoom ci biir ndab lay yem mu ne ko irfa yadayka ya rasulallah fa inni masmum yëkkatil sa loxo dañ ma poson gàtt bu ñu rey ba mu dee ñu fees ko ba mu set wecc ñu toj ko ba mu mokk ñu togg ko ba mu ñor upp ko ba mu sedd dëj la ko mu wax ak yow kooku dootul ciw de borom woy wi ne nataka wax na siran o xasabab kanam ba ba ñu doge woon ca gàtta ba waxante na ak yow wax boo xam ne def du junj du it lu ñu lëpp mu xëmal dafa wax ak yow wax bu biir a biir ne la dañ ma poson mu wax la ko mu ali naan loolooy misraan bi benn misraan bi mu gisatu la misraan ñaar bi lu ci tegu wadda bu mbëtt ma ñu reyoon ca yoor yoor dafa mës a def kuur nii di nettali nit ñi mbiri yàlla am sàmm bu jógee ca sàmmukaay ba ca tàkkusaan mu nga reyoon mel na mbëtt ca yoor yoor ne lu nit ñi def fii ñu ne ko Muhammad a fi nekk mu ne Muhammad lan la ñu ne ndawal yàlla mu xuus baag si ci ne bi xàll ba jàkkaarloog moom ne ko balaa ma laa gëm mbëtt mii gëm la mu ne ko da ala ardi tëral ko ci suuf mu rocc mbëtt ma ca yet wa tëral ko ci suuf ne bi foofu loxoom ne ko ràpp ci digg ginnaaw ne ko yaa dabbu mu ne la bayka wa saadayka yaa rasulallah mu ne ko mën naa mu ne ko anta xatimu nabiyyiina wa imaamul mursaliina moo tax mu ne ko wadda mu mbëtt ma yit xat la baa ko wuyu na la wuyu na la wuyu président ina ah ataaka ca bañ la ko indilee ba mu teew ci sa kanam waaw waaw jaa ngeen jëf wasibu taxawal misraaw la wasibu tillagayit ba mu jaaxlee ba jaaxle jaaka dikkal na la ngir tawat Moustapha laal ka la mu doon tawat deñ anas nit ni malik yi nee na musuma deñ di gëm nabi waaye sunu yoor yoor ba gis naa ñett yëpp yu tax ma sama ngëm yokk benn bi rek laay nettali dafa guddi ànd naa ak moom génn bay dellu si dégg kuy oote ci jaww ji ci àll bi ak déglu di oote ma geestu mu geestu seenuñu ko oote ñu wéyaat mu ootewaat ma geestu mu geestu seenu nu dara ñu wéyaat mu ootewaat ma dawal sama bët seen garab gu sori lu mel ni nit tëdd ma ne ko fële la oote bi jibi ma jiitloog na bi baag fekk benn rëbbaa ngi tëdd di nelaw yeew ñaari biis yeew benn biis bu jigéen ba ñaag fee taxaw rëbb bi nelaw biis baa wax na bi ne ko maa la oo yaay xettali képp ku am biis ci kaw suuf ci biir suuf ma bëgg nga tiinuwaan ma ci rëbb bii ci suba la ma jàpp reyu ma baw ma sama yeen yaa ngee pajak meew ngir ñaari doom yu ma bàyyi mu tiin ma ma nàmpali te ñëw na bi ne ko ndax bu ma la bàyyi di nga dellu si mu ne ko bu ma la waree yàlla na ma yàlla bugal gën jàbbo ni bugal ku la ñeme ña lor or na bi yeewi ko toog fa di ko xaar bis ba daw bàgg ca doom ya ŋarale tànk ya kenn ko dugg a nam génn moroom ma dugg tuñ ñaari yoon bopp ba na ko yaay ci lu wér dellul Moustapha naaj wala mu taxaw moo ma gën a ñor sama xiif mu dellu siwaat ba mu agsee ba nabi di ko yeewaat ci la rëbb ba yeewu na ko danga ko soxla mu ne ko xanaa nga jéggal ko mu ne ko jéggal naa ko ci bis ba bañ ko yeewee tànk ba mu jëkk yëkkati daf ko ne ŋaas na jàkk na bi ne ashhadu an laa ilaha illallah ne ŋaas ba ca def ne ashhadu annaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ko wal xasaalatu itam code biir ga moo di moo di moo di moo di moo di ki ma doon wax léegi biis mooy kéwél ga wal xasaalatu itam kéwél ga xat ata ka dikkal na la tas tëjiiru di sàkku tiinuwaan bi ka ci yow kon nag loolu la ci waa ji ñambaas bàyyi alaaji Malick dellu leen ak moom ca ndaw sa sa laajal yow mi bëgg a xam darajey Moustapha ak dégareem laajal umma mahbadi laaj ko soo ko xamul saata shaati mooy borom gàtta ba naka la na bi rëtt naan rëtt jox soxna sa mu naan kon Ababacar naan mu naan déglu leen jigéen ñi mu naan dafa dal di dafa dal di galax ndiku téere yi sama sëri yu ne naa ba mu galax ndikoo yàbbi fa mu yàbbule mu galax ndiku tàndarmaa fa sax ba muy war ca ngoon di dem tàndarma gaa ngi commencé di jóg ba mu dëddee jëkkëri ndaw sa ñëw daal di ne ndaw si miim soow ak jeexiti tëree yii mu ne ko jëmm ju baax a su ñëw kenn mësula gis ku mel ni moom taar ba mu yor ëpp na moog àndandoom sa gàtt bu woowu yenaat bii la laaj mu tooy xepp génne meew mu dul jeex naan naaj mu naan ci ka mu àndal naan li ci des moo ko fi bañ mu ne ko yaa perte koo koy muhammadu rasulillahi def fee gàtte yi maa ngi koy dabi tàndarma googa ba weer walaata dee meñña na waaye réew ma ne nañu fàttaliku nañ ne ku feebar boo ko laalee wér lu waa ji tawat boo ko ca ñaanee mu nangu mu nekk fay meññ du dog du rok du rak nag di ñor daayiman du rak du def xóolant day ñor rek daayiman di ñor daayiman ba am benn bés rek doom yépp rotandoo too too dara desul ca kaw ba yor yor bay dëgër tàkkusaan di jot lañ ñu tàggi Moustapha ne deena garab ga des fa ñuy jariñoo xob ña di ko jariñoo di ko jariñoo ba am benn yor yor xob yi jékki-jékki ne sarang wawa ndox sooy timis jël lañ ñu wax naa lii bu naa bi taalib deena mu des fa ëkk gën ak ñu di ko jariñoo ba gën ak timis mu ne jang jang daanu ci ëllëg sa lañ ne rey nañu Aseeni ci Karbala garab googu noonu la fa defe bàyyi laaji Malick ne boo bëggee xam nguur si sal laajal laaj rek umma mahbadi laaj ko saata saati mooy borom gàtta ba nga xam ne yenaat ba dafa deewoon laaj ko ko laaj ko kañ ina adaafati jamono ba mu ganalee ar rasoola njool mag te mu defal ko ko amal jat bi ci atab beekoor moo xam ne gàtt yi jur sax amuñu meew mu defalaat ko itam ci saatal ësëmi ci gàtt bu yenaat ba wow at mi gàtt gàncax amul gàtt bi dafa wow koŋ ne bi jëfanteeg moom ñooñu soo bëggee xam degré Moustapha kooku ngay laaj kooku sax alaaji Malick na ne doy waar am na ku ko gën a doy waar laajal kii ma lay bëgg wax ñu ne kookaay kan mu ne la
قدمه قدم الخير غل بالغير والكرم سمه كان موتا غالب غير والكرم يا علماء
أوصل سراقة بل سل سراقة place aw gi bal bal sal suraaqa salhu salhu malaqa wa say zimiixi wala malaqa bi say zimiixi wala malaqa ma say zimiixi salhu iskaana mustaliqaan bilxayri walkarami la ilaha illa allah déedéet bàyyul umma maxbab alaaji malik na laajal jàmbaar ji ñu wax Suraaqa ibn Malik mu dëli jë moo mënoon ci mag keroog ba ñu wëree na bi jaar yoonu Yoof gisuñu ko ñu jaar yoonu Dakar gisuñu ko ñu jaar yoonu Tëngéej gisuñu ko pexe jeex am na mag mu leen noon nguur sii ngeen bañ musiba dina leen dal Abu Talib waxoon na ko bàyyi Ali bi mu laata dee xalaat naa ci sama gént ngeen du mooyu koy jàmbur fat ko ñu tedd ca ngeen toroxe ca tey kenn mënu koo dogale kii dina dem bés bu génnee dëkk bi nag buy ñëw ngeen am lu leen naqari looloo taxoon ba nabi gàddaayee xamuñu fu mu aw ñu ne bu mu dem mukk bu rawee rek musiba dal kenn ku nekk aw barab résultat ya daje ne raw na gisuñu ko ñu daje nag ca màkk ca pénc ma ne ku ko indi ñu jox la téeméeri giléem boo yeboo indi jëmm ji wala nga indi bopp bi soo fabee jëmmam ji yow ko yépp nu téeméeri giléema ji su lànkee ne du ñëw ba nga dagg bopp bi indi ko muy bu Moustapha bii nu xam téeméeri giléema ji soraakatoo mënoon ci góor ñi moo jëkk a fugg ne la kenn mënul loolu ku ko dab rus de fekk bi mu koy wax du dëgg ci moom dafa bañ ku ko jëkk ci gileem yi dafa bañ ku ko jëkk ci gileem yi waaye du dëgg ci moom mu ne eh kooku ku ko dab ku ko dab musiba dal la de ku ko dab xam ne ku ko dab xam ne du moroom de naka la wax loolu okk jaamam bi woon ci wetam ne ko dawal takkal ma waaja daw kër ga takk léeg-léeg mu ne eh kooku dab ko fontu la ba yaakaar ne waaja takk na ba noppi mu fudd ne gaa yi maa ga kër gi di ko yeesalaat ñëw ko jaasaam préparé ay tungaram fe poson ko ba mu daj xappa ko ab xeejam war naaru góor ci seen ñaareeli fan la leen dab njolloor kurba boo xam ne dafa wëlbati ko rek seen bi ak leer gi moo ko Babacar ñu ngi temp ndànk rek mu ne hey ñu ne gees mu ne bu seen tànk fekk seen moom ci diggaal la bu xonq la Moustapha ngi désarmé yorul dara mu ngi armé da fees del wala sori alaaji maa ne boo bëggee xam ne bi dëgg-dëgg waa jooju nga koy laaj sa laaj ko furaxatu rek laaj ko ma laqaa la mu daj bi say si néeg naaru góoram kañ iskaana baa mu nekkee mustalixe xan di jéem a dabu ji bil xayri ci Moustapha wal këram ak Ababacar laaj ko la mu daj rek ne bi na tekk taxaw Ababacar ne tekk taxaw alaaji Malik ne dëgg-dëgg as gor day wax dëgg place booba Makka sori lool Aliou sori lool Amsatu sori lool jaxfar sori lool ababacar képp ak moustapha soraxatu mën ci àddina armé lool àll bi ne serew jaxaa yi di jooy salir yi sab dëgg-dëgg am na lu far ena Maodo la mu ne lan
تبضح ولا من كونه بيع من ليس سدما
neexul ba neexul waaye unaaka ci xëyug waa jooja ñu gestu muy moom neexul ba neexul waaye xat asina tiit na fa sadiqu ababacar sadiq waaw waaw say say boom doole leen dab fu wéet ah xat gi xatug taqiq la xat ñeent lay am pul waaye ci baat taxqiqi taqribi taqlili taksiri am na xatuk taqlili ak xatuk taksiri ak xatuk taqribi ak xatuk taxqiqi bii la xat goo xam ne bu ko borom làkkee rek la mu la wax dëgg la dafa wér ñele ca làng ga bu ci am bu ci am ku doon laaj ndax Ibou Sakho ngi taxawam dafa toog ki fa bëtam teg ko ci man te bañ a geestu kookoo ko sañal ak xat xaama du du du du wëlbati ko nag muy lu wér a wér xatuk alaaji maali googu nag dafa dëgg dëgg dëgg unaaka ca seejuwaay ja unaaka ca wéetaay ba unaaka ca ñaar gaa kenn ku waa joow ca te armée neexul ba neexul waaye xat asina tiit na siddiqu sa ababacar sadiq
تبنا شاولهم mbir mu mu di borom ngëlëmte moo fa ma jëm ak waaj su ma ko mënoon a yonoon cas ak moom asamaan ni juróom-ñaar def ko su ma ko mënoon dénk suuf mu wonal ma ko def ko muy wër nag na bi alaaji Maalik ne tiit ga du ragal dee nag min kaw nii ngir ga nekk rek saa sadamee di borom kër bi abi bi laaj ci sottat yàlla nabi mas naa wax na yàlla am na ñetti téeméeri jikko ku ci am benn dem àjjana Ababacar ne ko ñaanal ma ma am ci benn mu ne ko ñetti téeméer yépp a ngeeg yow moo deesee mun na bi na bi weeru gàmmu la juddu ci fukki fan yaak ñaar mu dajeek altine déglu li ma laa bëgg a wax lu sew a sew a sew la ci deesee mu Ababacar Moustapha njool màkk weeru gàmmu la juddu ci fukki fan ya ak ñaar mu dajeek altine gàmmu ga dellu si dellu si waat Babacar juddu ci fukki fan ya ak ñett mu dajeek talaata déglu li ma la wax de déglu li ma la wax de ñaari déeseem la na dee ngi juddu altine ju dajeek fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm Ababacar juddu weeru gàmm fukki fan ak ñett yu dajeek talaata maa ngi laa laaj altine ban bés ci topp yow waññakat bi ñaar lu ci topp kon deesee mu na ko ca ñetteeli fan ba deesee mu ko ca talaata ak altine nga wax bu tey في جنها التي ماله يتساق بابا كرم جروم ملو كونتر جروم ملو يلا دفنا أما من أحتى وتقى وصدق بالأسنى نو أما من بقل واستغنى وكذب بالأسنى كان كتنا كان ينتي فرانس لا يلا دم كي أبا بكر يجم كي أبا جهلين moo tax ba jawaab ji ñëwee fa san yasro lil usra am na fa san yasro lil usra it am na rabbi awsani an naskura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an nahmila salihan tarli wasli fi suriyati inni tubtu ilayka wa inni al-muslim ababakara ko moom bu yàlla ne wali man xaafa maa xaama rabbi jannataani bokk ko kenn ababakara ko moom وساورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل ابا بكر ليليغ من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي لا بقوم سيد ابي بكر كمهم والذي جاء بالصديق والصدق سيد ابا بكر ثاني اثنين اسمع في الخير اذ يقول ذايبي لا تحسن سيد ابي بكر ينتبه بي مصنف بين جار وغل بيم jox ko Ababacar ne ko yëbal ma ko tëgg ba soo demee ne ko tëgg te bindal ma ci kaw laa ilaha illallah bu ci yokk dara Ababacar yëpp ko tëgg ba ne ko bindal ma ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah tëgg ba tëgg jaaru ba bind ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah Ababacar jël jaaru ba këmp ko yëpp ko Moustapha ne bi xool jaaru ba fekk ñu bind ci laa ilaha illallah Muhammadu rasulullah Ababacar sadiqullah ne bi ne ko ndollante lii ku la ko sant Ababacar xool jaaru ba fekk ñu bind ci loolu mu ne ko laa ilaha illallah rek nga ma santoon muhammadu rasulullah maa ko ci teg ñeme ñu maa tàggale sa turab turu yàlla waaye dëgg-dëgg ababacar sadiq ji def lu moo ko ci tëgg bi defu ko ci na bi ree ne ko jibril la ngi toog na yàlla ne ni nga bañ a tàggale sama tur ak wasam ni la bañ a tàggale sa wasak sama was moo ko ci def da ci rek lees jasakumullahu anna xayra yal na yàlla yombalal wërsëg bi jaay rasulillahi sidi abi bakar sadiq yonente bi keroog ba yàlla wàccee aaya bii may bëgg a wax man yaqridullah gardan azama saaba yëpp dañu xaaj seen aleel joxe genn wàll gi téye genn wàll gi am ñu fab seen aleel def ko ñeenti xaaj téye ñett ñu joxe benn bi am ñu fab seen aleel def ko ñaari xaaj joxe benn bi téye benn bi si dee bii ba kër dafa dab lu ji caawa ga réglé opération yëpp dajale meññante yi meññag yi meññagul songo waxande yi aji portemante yi dugg ca rondal yo boole la mu am yëpp joxe ci yoor yoor millionnaire la ci takkusaan muy ndóol ci yoor yoor millionnaire la ci takkusaan muy ndóol jantob keroog la Fatima war a dem këram ñu yónnee ci moom ndaw waaye amul lu mu sol ba wuyu si Moustapha ndaw la dem demaat dem demaat yoonu ñettee walay bañ yeddeel ñari mbàjj moon calal ma tarax laayoo ko ndeysaan mu fab malaan ma tarax laayoo ko ba mu ñëwee ba jub nit ña mbooloo ma bari mu am kersa ci agsi ndeysaan jonkon yor bant di sampantu ndeysaan jibril ba tasmaan juróom ñaar tarax laayo mbàjj mu xonq yor bantay sampantu nabi na ko tëni bii lu tax nga indi ko te musula koo sol mu téye mbagg Moustapha laqar ci ko joxoñ ko Abi Bakrin na yàlla joxe na ordal kuy malaaka koo suuf tey nga tëni tëni Ababacar mbaa ñu far sa tur alaaji ma góor yal na la yàlla yombalal wërsëg alaaji taal moo fi joxe woon ñaari téeméer joxe xaftaan bi yal na yàlla woo di sama laa ne ajjana ya am na ku ñuy wax sukkay na ka joxe woon na fi ñaari téeméer yal na ko ko yàlla yombalal yombal ko julit yëpp di jaay rasulillahi ajaratu ndey sàmba yal na ko yàlla yombalal wërsëg yombal ko julit yëpp alaaji duudu mbay ajaratu ndey sàmba mu ne bu ñuy wax turam nañ ci boole jabari alaaji duudu mbay kon nag alaaji duudu mbay jabar sa jabar moo fi joxe mi ñaari téeméer yooyu ci Moustapha xadi si sa tantam moo ko fi joxe yonent bi wax na benn wax nee na jamono bu jaam jóge te fa ko yàlla tëraloon muy bàmmeelam ba na ñokket taxaw moo xam àjjana la jëm wala safaan ba balaa buusa benn jeego dina expliquer yàlla yetti affaire sa dund gi ci loo ko sànq ak ni dund foore sa wërsëg bi noo ko amee bi mu tàbbee sa loxo foo ko dugal yooyu ñett moom benn jeego rek may ñu kenn mu paase ko te expliqué wu ko xëy na julleeg or ak dopp ak mbokkaan ca kanam di la xaar waaye fii nga jóge daal yow ma yén fetu fi soox fa sayqa man fi samawati man fi ardi illa man sha allahu suma nufiqa fi uqra fa isam qiyaamun jooju mooy cala na bi waxe woon na maa gën lu yàlla bind